le le le le vœu il est à à saluer et création d'une nouvelle ville qui doit être euh, qui doit être aménagée euh, xëy na bu ñëwoon bu bu ñu ñëwoon fekk fa euh, projet yi yëpp ngeen cité xëy na aujourd'hui polémique bi du du demee noonu. mais projet boo nga xam ne may moon yow tamit. mais mais en 2023. waaw d'accord affaire bi du xëy rek du d'accord mais problème bi mooy bi mooy dañoo dañoo dañoo jël ces terres là. Euh, quelle que soit explication bi ñu mën a joxe derrière jox ko ñoo xam ne on a l'impression que benn caste de privilégiés la ce sont des politiques ñu yëkkati des terres jox leen dix hectares treize hectares soixante hectares euh, trois cent ak ñoo xam ne dañ leen jox trois cent hectares non amul kenn ku am trois cent c'est la loolu ko fa fekk mu yor ko mu ah. exploitation exploitation agricole d'accord mais hectares ak yooyu ah. est-ce que les Sénégalais waruñu choqué pourquoi ñu déclasser une forêt même bu fekkee ne du du alal du suufu kenn ñu déclasser une forêt war a étendre li nga xam ne moom mooy la ville fexew ñu dugg ci biir population yi nekk les premiers bénéficiaires ah. les investisseurs keeswaa nekk les premier bénéficiaires à la place on prend les terres on donne ça non, à des hommes d'affaires à des politiques les gens ont refusé de regarder la vérité au conseil présidentiel de Thiès d'abord dafa fekkoon li quartier bi ñu wax Mbourkat dafa am ñoomoon lu ñuy wax occupation irrégulière occupation irrégulière de bulldozer ñëw toj ko des ko ñëw toj ko maa ngi fàttaliku bu ñuy def décret bi bu ñu def décret bi ñu commencé di ci wax di ci wax processus bi ku mel ni ministre Yankhoba Diattara mu ngi may mu ngi may déglu di doon toujours conseil des ministres ne président li ñu ci war a man a def ñu reloger ñi nga xam ni foofu lañ nekkoon ñu jox leen seen terrain ba pare président accédé ci ñu crée une commission régionale présidée par le gouverneur parce que am na lu nga xam ne fii mu ngi ci ZAC ou bien mu ngi ci lotissement administratif dañ koo delloo une commission régionale commission régionale identifiée bépp doomu Thiès bu nekkoon ci boobu te ñu ñu ñu ñu tojoon terrain te mu nekkoon ci une occupation irrégulière ñu war ko maintenant régulariser bu ñu ko identifier et loolu amul benn autorité centrale bu ci intervenir président de la République mu ngi remettre titre yi bu ñu ñëwee di def conseil présidentiel foofu mu ñu war faa prévoir trois mille et te premier lot bi ñu joxe woon foofu mu nekk mille et quelques chiffre bi gouverneur de Thiès ou bien le directeur des domaines pourrait y revenir loolu kon def nañu ko li nga xam ni li ñu ñu yelloo te ñoo ci droit te maa ngi dégg sax communes yi yenn communes yi mais amul benn commune bu ci am droit parce que foofu set amul ci nekkul ci benn territoire benn commune maa ngi dégg sax le maire de la ville de Thiès mais la ville de Thiès n'a pas de territoire encore que moom ci boppam bi mu ñëwee ci lii moo parce que moom dans le processus d'élaboration il était impliqué bi mu ñëwee mu am jafe-jafe ak le gouverneur de Thiès mu am jafe-jafe ak le directeur général de l'urbanisme dafa ñëw wax ma ko bind ma bind courrier d'abord ñëw wax ma ko amoo bureau bi ma ñëwee wax dama ko ne monsieur monsieur le maire je respecte votre posture et je respecte votre position mais dama bëgg loolu directeur général urbanisme ñu waxtaane ko amul dara lu ñuy nëbb parce que président de la république instruction moo nañ ci waxtaan ba ñu déggoo moom bu mu ñëwee toog ñu waxtaane ko ma ne ko le reste maintenant c' est pas au ministre de prendre la décision continuer la discussion avec le directeur général de Dubaï tout ce qui est parce que ñoom dans les zones économiques euh, dans la zone économique spéciale les mairies et la ville devaient être associées am na yenn yoo nga xam ni ay ay ay fourrière am ay fer yu bëri yu nga xam ni bu ñu ko def c'est pour les populations de Thiès de manière générale ñu ne ko nañ ko ci impliqué et lui il a voulu aussi avoir tout ce qui est plan de ça et je donner instruction devant lui au directeur général de l'urbanisme de le faire parce que nous on avait absolument rien à cacher maintenant comme ni ma la ko waxee may mun parfois il effet de vouloir nuire dama ci jox benn exemple rek parce que xam naa exemple yu bëri c'est-à-dire damay jox par exemple maa ngi dégg ñu wax wooy Idrissa Seck à xam nga lu xew mooy parfois des opérateurs des partenaires techniques et financiers mën nañ am facilitation am na ñu nga xam ne ñoo ñëwoon fii pour def une grande école avec toutes les commodités avec toutes les commodités comme genre université bu mag a mag sur treize hectares mais sur les classes préparatoires Idrissa Seck a été le facilitateur de cette affaire bi mu ko facilité président recevoir recevoir leen réunion boobu ñu par ñu def ak ñooñu il y avait le ministre de l'éducation nationale il y avait le ministre de l'enseignement supérieur il y avait moi-même il y pas l'ombre de Idrissa Seck à cette réunion bu ñu waxtaanee ba pare ñoom ñu évaluer lépp lu ñu wax mooy mooy liy def treize hectares président la joxe instruction pour ñu joxe après je vois Idrissa am na ñeneen am na ñeneen aussi am na ko faciliter kenn pour qu'il fasse un terrain de sport ou bien qu'il fasse une clinique nga ñëw après parce que kooku moo facilité on donne le nom mais on on pourquoi on n'a pas donné Euh, bon c'est un dossier que boo xam ne maîtriser nga ko bu baax. Euh, loo am lu ma ci xam on parle de Idrissa Seck euh, on parle de Abdou Mbow. Oh, mais attendez man je ne vais pas revenir sur ça damay joxe exemple rek c'est-à-dire que. non ñi joxe tur yi. ñi non ñi joxe man man joxe ma tur. est-ce qu'il y a eu des attributions. mais attendez attribution attribution c'est pas signé par le ministre de l'urbanisme chacun a sa responsabilité. attribution c'est pas signé par le ministre de Diourbel mais li am solo laa wax ni parfois il y a effet de nid ma la jox benn cas boobu rek mais mënu ma ñëwaat ci liste yëpp ku ci nekk ñu joxe li mais li am solo aussi pourquoi waxul bul ma dagg balaa muy mel ni damay choisir c'est-à-dire euh, on parle de Idrissa Seck 13 hectares on parle de Abdou Mbow on parle de Birame Souleye Diop on parle du maire euh, Pastef de de de de de Thiès Est xaw ma Thiès Ouest ban la ci euh, on parle du maire de la ville de Thiès Babacar Babacar Diop euh, on parle de Cheikh Omar Anne on parle de Doudou Ka est-ce que parmi la liste am na ñoo xam ne euh, cité nañ leen te te te bokkuñu ci on parle de Youssou Ndour on parle de Pape Diop Pape Diop a reconnu mais nee na suuf bu ñu ko fay la est-ce que am na ci ñoo xam ne dañ leen tudd injustement dans cette liste là ñëpp ku ci tudd si injustement parce que amul kenn koo xam ne ak titre personnel lañ ko ko joxee c'est pas vrai kenn koo xam ne am na dimbali nañu ñu am partenaire ñu ngi créé nouvelle am na ay ministres am relation dimbali la facilité la ba nga am nit bu nga xam ne mën na fa def lii mën na fa def investissement bi mais dama ne la ci ñooñu ñëpp amul kenn koy gis turam mu nekk fa amul après on va dire oui non ay prêt non lañ c' pas vrai. parce pas vrai. non c' nouvelle bulle qu' on nouvelle bulle boobu dana am ñu nga xam ni qui ont des relations internationales qui ont des connaissances jox naa la par exemple boobu maa ko fekkee. lekkool lekkool bi nga xam dañ ko créé école bi nga xam ne classe préparatoire mu war a am toutes les commodités ay partenaires ñëw Idriss jël leen bi bitim réew boole leen ak président de la République bi mu leen recevoir ñu ne ñu évaluer et c'est la même chose presque pour tout le monde mais il arrivera par par contre il arrivera par contre état état aussi ci ci ngay ci ci yore ay prérogatives nañ ma wax quelle est l'irrégularité dans ça xam nga man boo ma waxee ñu ne ma même mën a ndur am na fa ñaari parcelle mais ban ban ban irrégularité lañ def lan la ñu violé est-ce que CCOD moo ko joxe est-ce que ministre bi moo jox toog rek ci boppam toog bind signé na ko jëlal. waaw mais ou bien est moo ñoo bind ne dëw jëlal. waa mais l'explique amul fenn y a une explication quand même na ne na ne tient pas la la la route. c'est pas parce que le ministre a a, intercédé pour un investisseur que ci suuf bi dañuy def tour tour ministre bi ça n'a aucun sens. c'est le nom de l'investisseur attributaire de la parcelle moom la ñuy moom la moom moom la ñuy def absolument non dama la citeel ay nom nga ne il arrive qu'un ministre avec ses relations euh, boo intercédé euh, intermédiaire nga c'est pour rendre service à ton pays c'est pour. Bah, bah, mais, euh, donner des opportunités mais de ce tour war a def pourquoi on tout ñu def ce Pourquoi on mettrait, on, on, le nom de Idrissa ou bien un nom de Doudouka ou bien un nom de Til parce que simplement pourquoi ils n'ont pas donné tous les noms? Première question. Deuxième question. Si Doudouka, ancien ministre de l'économie, pour nous faciliter quelqu'un, pour qu'il nous fasse un investissement sur un, une clinique ou bien un terrain de football ou bien etc etc. Parce qu'il y a 50 pour Doudouka, il y a 50 hectares au, au, au ils ont oublié aussi de dire que les agents du ministère de l'urbanisme ont été attributaires te loolu tamit dañ ko c'est comme les agents du ministère de l'environnement parce que qu'est-ce que le président a identifié parce que les gens qui travaillaient sur le processus qui se mettent six mois un an à travailler sur un processus après ñu ñëw benn terrain duñ ko fa gis président mu ne nañu régler injustice boobu au nom de quoi le président de la par le syndicat des impôts syndicat des impôts fu muy attribuer terrain au nom de quoi lui il peut être attributaire d'un terrain au titre des syndicats des impôts et que les travailleurs du ministère de l'urbanisme ou bien du ministère de l'environnement ne puissent pas l'avoir au nom de quoi. mais là le de de quoi quelqu'un de quoi man li ma xam nga may mën li ma doon jàpp mooy nga ne ma telle loi a été violée tel décret a été violé encore que ñoom dañoo ne jub jubal jubanti man mënuma wax ni lépp li ñu def foofu jub na mënuma koo assurer parce que nit laa rek. mais encore une fois bu fekkee ni gis nañ ni ci lii nga def ni jubul yow la ñu war a njëkk oo ci yoonu administration ci yow la ñu war a njëkk oo ñu ne li tax ñu defee nii defee nii. mais mais Ablaye mais bu fekkente ni. kilifa administration bi. mais mais Ablaye Sow bul déplacer mooy doxale a lieu d'être inquiet bul déplacer débat bi encore une fois. kenn fi sujet wul les les attributions faites aux aux travailleurs du ministère de l'urbanisme kenn fi sujet wul les attributions faites à à à une certaine classe de travailleurs xam nga lan moo choqué nit ñi. au nom de quoi euh, un titre du domaine du du du du un, un titre foncier. qui appartient à l'État ma ne au nom de quoi. Euh, un espace un espace foncier qui appartient à l'État du Sénégal. on retrouve des hommes qui étaient au pouvoir ñu jox leen dix hectares euh, sa cinquante hectares ak yooyu c'est-à-dire c'est ça qui pose problème pourquoi ñoom ñu seen ndombal tànk permettre leen ñu teg la main sur des assiettes foncières pareilles ensuite muy benn beneen bi l'autre risque mooy tous les projets que vous avez énumérés ne moom lañ ci waroon a def euh, ni ñu séddoowee suuf si jox ko ay particuliers est-ce que euh, est-ce que moo tax ma ne la la réalisation de ces de ces projets là journaliste li mu war a def mooy d'abord njëkk a xool texte bi yow xooloo décret bi ñiy wax ñu bëri xooluñu décret bi ma génnee ci décret bi am na lu ñuy wax zone d'aménagement concerté c'est trois cent et quelques am na lu nga xam dañoo ne pour le contentieux de l'État Pape Diop loolu la leeral ni amoon na contentieux fële ñu war koo fay foofu amoon na ay contentieux te contentieux yi bu koy sulli de dana contentieux yu date pourquoi président benn journée Euh, la la menace la la la grande menace bu Sénégal di am c'est la bombe foncière donc ces problèmes-là ne datent pas d'aujourd'hui donc da nga bëgg a ñu fa jox. Euh, politique yi ñu fay tànn yëpp yi ñu fa tudd yëpp. di am a donné un exemple. au nom de quoi on donne 120 parcelles à quelqu'un 50 parcelles à à quelqu'un non pas du tout encore que loolu aussi c'est faux. ah jox nañu ko 100 non non c'est pas 120 parcelles dafa la commission régionale s'est réunie ñu bu def ay répartition parce que aussi c'est ça a toujours fonctionné comme ça dans le système bu ñu defee subsides bi ñu war a attribuer à au conseil municipal de Thiès ou bien au conseil municipal des de conseil municipal de des des de des communes d'arrondissement mais fan lañ koy jaarale conseil municipal boobu c'est pas les instituts personnels les conseils municipaux il y a des demandes dans chaque mairie il y a des demandes d'attribution les Sénégalais demandent les Sénégalais vont au ministère des demandes vont au ministère des finances déposent des demandes il y a des gens qui vont dans les mairies il y a une commission régionale autour du gouverneur qui doit statuer sur ça mu joxe une position mais Babacar Diop pour reconnaître ñoom 120 parcelles dañ ko tra dañ ko euh, partagé aux travailleurs euh, municipaux. oui mais ça ça euh, aux travailleurs municipaux oui mais moi je veux pas xam nga aussi may mën a je veux pas que tu me ramènes à ce débat là de kii moo def lii kii moo rapporté lii man li ma la wax c'est les principes généraux moi ministre je ne peux pas être à ce niveau de détail nee naa la. ah ce que je dois reconnaître non donc bul plaider Babacar Diop parce que Babacar Diop non je n'ai pas plaidé pour Babacar Diop la la la destination des des terrains il est venu me voir il a eu ses appréhensions qu'il m'a indiquées parce que nit dafa honnête. quel que soit je ne suis pas d'accord avec les postures qu'il parce que yu bëri mu ngi koy wax maa ngi koy dégg mais li ma mën a dëggal mooy yu bëri lii mu wax nag ñëw na bi ma nekkee man ministre de l'urbanisme mu toog sama bureau wax ma ko ma au directeur général de l'urbanisme ñu toog ma ne ko le reste nag des discussions na nga ko continuer ak directeur général de l'urbanisme lépp lu nga xam ne war nga ko fa xam na ko xam parce que làqu ñu daal parce que may mun a nañu fàttaliku même le directeur général de l'urbanisme boo seetee ni ñu ko namee rek bu fekkee ni ku bëgg ku bëgg indi ay jafe-jafe ou bien bëgg a luubal ou bien bëgg a def loolu doo ko def parce que projet bi nouvelle ville de Thiès c'est feu Omar Sow moo ko engagé woon ak le l'ancien directeur des de des des eaux et forêts Baydi Ba c'était les deux maîtres de Baydi Ba aujourd'hui à la retraite Omar Sow yal ko yàlla xaare àjjana man ma ministre ak Alioune lu ñu ñëw mooy décret bi ñu préparé ko yóbbul ko président de yàlla def bi décret bi bu ñu ko paree rek ba ñu commencé def mbir mi février 2023 avril Omar Sow génn àddina bi ñu koy remplacer président la république ku mu neex mu nommé ou bien ku nga xam ou bien ki nga miin man maa jël yóbbu Abdoulaye Diouf proposé ko au président la république mais ci ban critère laa ko teg du relation politique du xamante buy yàgg du dara lu dul présomption de compétence mu ngi nekkoon directeur te ma gisoon ci directeur yu gën a xarañ ci la bokk. est-ce que le choix de sa nomination a à avec. ce qui a été fait y avait de faire des choses qui ne sont pas normales doo fa nommer ku nga xam ne mii mais xam donc pour yow ce qui a été fait a rien d'anormal. mais non non xam c'est aux aux de voir ce qui n'est pas normal ñu ne lii normalul mais nous quand nous faisions les actes en tout cas en ce qui nous concerne. tout a été fait dans les règles de l'art. donc c'est amul benn attribution boo xam ne nañ ma wax xam nga ñuy accusé tubaab de juriste yi dafa ne euh, acteurs yi incombit probation mooy ceux qui ont accusé ont la charge de la preuve man nañ ma wax quel est le texte qui a été violé attribution suuf CCOD moo koy joxe CCOD bu ko joxe directeur de domaine def attribution. man quelle est ma responsabilité dans ça ou bien quelle est la responsabilité de qui que soit dans ça. bu dee jaar na pour est-ce que procédure boobu a été acceptée ou n'a bu fekkee ni ZAC la bu fekkee ni zone d'aménagement concerté boobaa dañu ñëw ah ñu saisir ministre bi ou bien ñu saisir directeur général de l'urbanisme ah ñu ne oui d'accord ñii par rapport à ça par exemple agent yu nekkoon ministère de l'urbanisme ñoom ñëpp ñooñu ñëpp presque ci ZAC lañ leen jox boobu ministre de l'urbanisme moo joxe xam nga aujourd'hui pour nga am suuf dafa am une procédure donc mënu leen xëy xëy rek dagal ay nit te ñooñu duñu jaar ci procédure bi Euh, ba ñu ba jox leen seen kayit le problème c'est pas la procédure le problème c'est le choix des personnes ah, yu ñu fa yu ñu fa yu ñu fa jox muy benn xaaral may ma s'il vous plaît waaw mais waaw mais s'il vous plaît rek s'il vous plaît le choix le problème euh, c'est un peu à la fin de la fin on retient ce que l'on retient à la fin de la fin c'est que les terres de Mbour 4 yëkkati nañu ko jox ko ay borom doole jox ko ay homme politique euh, qui qui la faveur d'être euh, au au pouvoir alors que à côté xëy na am na sénégalais yoo xam ne yelloowoon nañu ko mais amuñu ci amuñu ci amuñu ci accès c'est-à-dire y pas de démocratie ci façon dafa mel ni non seulement am na un conflit d'intérêt ngeen nekk ci seen biir di joxante suuf si mais aussi y a problème euh, sur la nature de ces de ces de ces attributions là c'est là où se trouve le le le, le débat. Maïmouna, quand Maïmouna, on voit cette liste là. mais Maïmouna quand même xam nga yow sa débat du avancé cette question j'ai répondu quatre à cinq reprises dama ne la un d'abord boo waxee ñooñu lañ ko jox du dëgg ñi ñu fa njëkk a jox les titres les premiers titres mooy ñi nga xam ne dañoo tojoon seen i li ñu fa tabaxoon ak suuf te ñu defoon ko ci forêt classée DESCOS ñëw dindi ko président mu ne balaa ngi ñuy def lenn boo xoolee conseil présidentiel de Thiès. lañ njëkk jox ñu te nee naa la c' est l' équivalent d' un chiffre de 3000 et quelques te conseil présidentiel boobu rek. 1000 et quelques ça on a suivi ça en direct à la télé bi président loolu itam la responsabilité. ça c' est pas le problème non mais man laisse-moi m'exprimer bu il faut pas m'amener là là où tu veux amener le problème il faut tu tu as li ngay wax ni mooy que ni sama waa ji on a donné qu'à des gens comme ça tous les autres Sénégalais lambda n'ont rien yaa ngi wax fi léegi ce qui est attribué à la ville de Thiès ñu ne 120 la ou 200 la ou je ne sais pas ñu ne waaye Birame Souleye et cetera et pas la personne de Birame Souleye ni la personne de Babacar Diop c' est à des institutions et ñu organiser pour que les citoyens puissent y accéder mais dama la parallèlement et qu'on a qu'à me dire dans quelle nouvelle ville du monde on a créé sans attirer des hommes d'affaires pour ñu mën a def des investissements qui permettront d'attirer les autres. et les hommes mais je t'ai dit parfois xam nga ces ces histoires là de liste qui je t'ai dit encore une fois apportez la preuve parce que moi je je te donne l'exemple tout de suite de Idrissa Seck est est mêlé dans dans sa dans un cas ou dans un autre Doudou Ka a été ministre de l'économie il nous a facilité certaines choses le fait que maintenant xam nga ànd ak Doudou Ka mu ñëw indi la ay nit ñu ne way nitu Doudou Ka lañ ñu ne kon Doudou Ka moo nekk ci ginnaaw c'est exactement ça c'est exactement ça mais tous les jours défileront dans les cabinets des ministères des gens qui vous ont été amenés par des collègues des gens qui vous ont été amenés par des par des par des personnalités tous les jours ay nit indi la. ay yow mi may mën a nduur fay mën nga am koo xam nga indil ma ko. parce que jàpp nga ni jàppale ma si sama liggéey déglu ma rek pour jàppale ma sama liggéey nga yow may mën a dóor fay nga ne damay jàppale si sama liggéey si nouvelle ville de Thiès am nga ay xarit yu nekk Dubaï ou bien am nga ay yu nekk France nga indi leen ñu gis leen nga ànd ak man am na ñu nga xam ne ñu ngi fa nekk buñ boo génnee ñu ne lii may mën a ndur fay moo ko moom. ma balaa ma lay indil ay nit. ma ma ma indil la sama pièce d'identité nga sedd ma suuf. ndax maa leen ko ah, gën a yelloo. ah sedd ma la de. ah non mais mais. c'est ma ne. xam nga xam nga lan mooy euh, offusquer nit ñi dans ce genre de situation c'est-à-dire des ministres son la nekk ministre am tous les avantages de leta déjà parce que juste ils dans un régime suuf bu bu bu ñu gis. gars yi seddoo ko bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñoo war a mën a def les aménagements bàyyi sénégalais yi nga xam ne ils ont fait des investissements ils méritent qu'on leur attribue des des terres yow man xam naa la bu baax a baax a baax mais euh, est-ce qu'est-ce qui peut expliquer que moi en tant qu'investisseur que je ne puisse pas accéder au foncier ngeen jël foncier bi di ko séddoo seen ah, biir la tontu benn un bindoo malgré suñu relation bindoo ma mosoo maa bind mosoo koo laaj laaj ma laaj bi mooy taxaw ci mbedd mi laaj ma loolu man du ma. laaj ma kilifa la ñaata yoon laa leen wax may leen. tabax boo ma bindee. ñaata bind naa sax président de la ma bindee en tout cas président imputé wu ma sa lettre boo ma bindee man man du man maay joxe xam nga loolu tamit parfois dañuy ñëw rek benn photo ñu bind bay Abdoulaye Sow am na ñoo nga xam ne tooñ rek man chaque jour ñu tooñ bay Abdoulaye soo bind na benn affaire mais attendez boo bindee boo ma bindee man dama koy jox les services compétents service compétent ñu wax ma seen avis bu ñu ma waxee seen avis ma jàpp ne lii du lii. ma ñaata sénégalais ñoo leen di bind di laaj suuf doo leen leen jox ñëpp. c'est clair amoo ko pour jox mais na loolu aussi loolu moo ci am te même na dama jox naa la fi exemple yow bëggu teg tànk yow bëggu teg mais nañ xool euh, Sacré-Cœur dans son histoire nañ xool cité kër góor gi. sa ah, déglu ma rek Sacré-Cœur. ñi fa amoon ñëpp c'est des gens du régime libéral. régime régime du régime socialiste. voilà c'était Kër Góor gi. non euh, c'est des gens du régime euh, du du régime libéral. mais c'est les mêmes procédures. Ah? c'est les mêmes procédures BOA Ewogène. c'est les mêmes procédures la. c'est les mêmes procédures ay wax la c'est ah, ay wax nga man. c'est des nous aussi mais citoyens am na ay citoyens lambda yu. yu ah? mel ni yow yu mel ni yow citoyens lambda yu mel ni yow yu dëkk Thiès yu am ci. te taxaw remercier président la République. remercier ko conseil présidentiel gis nga mag bu taaw ci kanam président jooy nekk su toon yow tey du mu am kër loolu yëpp ñu bëgg koo faxas man sax d'accord naa nga gis yow yàlla tey yow la teg ci bopp réew mi nga gis ni lii jox nañ ko mais attanu ko nga may ko diir parce que nit tamit boo exploité li liñ la jox état am na droit tegaat ci loxo mais état réew mi ñu nekk nag état de droit la mooy l'état lui-même est soumis à au droit bu boobaa man kay jarul maanaam lu may lu may mooy jébaane bi ñu ci réew mi yaa ngi yore instrument yu nga xam ne war nga ko mën a contrôler yaa ngi war a instrument pour mën nga ko gestu mais jël instrument yow nga gestu ko. da jàpp ne c'est aussi simple que euh, mooy président de la République. Euh, utiliser les à a il en a pour investiguer cette affaire-là ba pare buñ la joxee te exploité woo ko mais état bi de bu la joxee daf koy nanguwaat combien de fois état bi nanguwaat na fi ay suuf lu tax ci littoral bi ñu wax ba pare teggiwaat tànk parce que dafa am ñu nga xam ne seen i këyit en bonne et due forme la ñu yor am ay seen titre foncier mais mënoo ne tëb tëb rek quel que soit ngay président de la président de à l' de droit yoon yooyu ala kulli àll ñu xam ko maintenant nag boo nekkee rek am nga ay levier pour ne ah lii utilité publique am naa ci bu ne neexee nga exproprié am na aussi une procédure mais maa ngi fàttaliku en 2013. mais Ousmane Sonko l'avait bien dit et de la manière la plus claire dafa ne gisul benn loi gisul benn texte bu tere nit am muy am ñaari terrain gisuma benn texte ak benn loi bu tere nit am benn superficie gisuma ko bu fekkee nag am na mais nañ ma ko génne. mais il se pose un un un problème moral c'est-à-dire pourquoi ñu yëkkati benn nit tey jox ko cinquante hectares. encore mu am ay consi xaaral rek s'il vous plaît nekkul investiseur xamuñu projet ban la ciy def. ñu bari ñu ñu attribué investir ñu xamuñu projet ban lañ. lañ ciy def gisuñu ñu def ci projet. pourquoi ñu yëkkati cinquante hectares. mbaa dix hectares. di ko jox ay nit alors que mënoon nañu def dans l'équité xool ay yeneen sénégalais. yëkkati jox leen ko xool ay projet d'utilité publique def ko ci sénégalais yëpp profité si mais loolu laa la wax loolu je suis pas contre mais ba tey nee naa la. mais c'est de leur attendez c'est de leur responsabilité de

peut-être que mai 2023 ngay commencé mai 2023 en 6 mois nga bëgg loolu yëpp tuddoondoo fii nu mu mën a amee moo tax dañoo yàkkamti parce que mbir mi da ñi nga xam ne jox nañ leen ko ay sénégalais lañ yu ko yelloo am am doole ji mën ko li ñuy jëflante ak ñoom nag bu ñu ko deful bu boobaa état bi mun na cee teg loxo. est-ce que ñoom bi ngeen ñoom est-ce que bi ngeen leen bi ngeen leen jox da ngeen assujettir ces terres là à la présentation de projets de de développement ou de projets d'utilité publique il pas eu ça dañ leen jox euh, nu mu tudd selon le faciès Maïmona tu es en train de faire de la diffamation je ne fais pas de la diffamation un d'abord un partenariat naa la yow da nga dul déglu ou bien da nga nekk ci leneen dama ne la bu nit bëggee terrain am na yoon bu muy jaar yoon bu muy jaar boobu du man maa koy attribuer dafa am CCOD CCOD bi dafa am soit ñu def réunion physique ou bien ñu def consultation à domicile comme ni conseil supérieur de la magistrature di doxee kon boo jaaree procédure boobu nga nekk citoyen au nom de quoi moi je vais faire ce débat que tu bëgg ma bëgg a dugal nee naa la man loolu du suma débat tey l' administration est une continuité bi may def passation de service inspecteur général d' état bu ñu def ma ne waxal lépp li nga xam ni jàpp nga ni ay dossier brûlant lañ nga wax ministre bi na la poser n'importe quelle question bu la poser n'importe quelle question dans les huit jours on reviendra pour vous envoyer un pré-rapport sur lequel vous allez donner votre avis c'est ça un état suñu paree nag ñoom ñooy xayma lépp lu yëpp méngoo ak seen gis-gis ak seen i politique ñu ne ah lii dafa laata ñu ko di mais loolu jarul cow jarul jarul jarul buntu nit ñi jarul jarul di jébaane nit ñi alors que yow ñi ngay jébaane interpellé woo leen donc loolu jar la ñu fi làq lan moo fi bees may mun lan moo fi bees. donc euh,